askan wi baa jàmm ngeen yendoo ñun de moom la ñu fanaane lu def nag lu ay di jàmbat ah bisimila yi jàmm vox populu lañ ko xëy daal di doore mu limal ñu ñeen fukk ci ay bakkan yu root te dara waralu ko lak lu dul géej gi ak ma ne ko ndaw ñi yéene bi ne bu ñu sukkandikoo nag ci kii di colonel pap Michel Diatta di ab na ne ko sapeur ma ngay dellu nag di xam le ni ñoom jot nañu amal ma ne ko juróom-ñeenti génn yu nga xamante ni daal ma ne ko wàllu nañu lu tollook ma ne ko ñaar fukk te loole sax jot nañ ca daal di sowe lu tollook ma ne ko juróom may ko bët ci xët mu njëkk yéene kaay bi zoom info di ñu xamal ni ñu Mali bu nag mbir ma tar na fa ndaxte ci dirub ñetti fan rek fukk ak juróom-ñeent ci bakkan jot nañ fa daal di lap ba daal di ñàkk noonee ma ne ko seenug dund réew mi quotidien ànd ak ñun di ñu tabal ci tontu yi nga xamante ni ki yor nag wàllu yoon ki ci réew mi yot na ko yëkkati jébbal ko kii di Cheikh Bamba Dièye xamal na ko ni ko nag moom de ku irresponsable la kaddu yooyu nag bokk na ca moom la mu daal di xam le ni daal bokk na ci ñoom juge mu daal di jàpp ni daal dañ leen daal di corrompre dañ leen daal di guerre Dakar Time booba la jamono nag xëy na daal di xam le ni ah kii nga xamante ni moo di procureur bu Qatar bi dellu siwaat na ci ndakaaru gii de talaata de ma ne ko ba léegi mi ngi fii bi yéeni kay bi jàpp ni nag diggante Karim ak ki nga xamante ni moo di njiitu réew mi Macky Sall lay dox seen diggante nag moo di ndiit la nga xamante ni mooy tax ñu mën a daal di jokkoo yéeni kay bi ni ñoom nag Qatar pare nañu ngir daal di bàyyi kii di Karim mu daal di ñëw nag ma ne ko ci réewum Sénégal yëral Dakar Time source a ñëw di ñu xamal ni ñu Alioune Badara Cissé boobu ba léegi ñi ngi ruumbalaat ni lan lay wax dana wax nag lu jëm ci wàllu candidature 2019 yi démission ba ñuy wax ci moom ci gi dana amam déet médiation bi wax ci ak ministre yeeg ma ne ko la ko ma ne ko ñeel ak mi yër ko moom am ca lu la leer 24 heures li li leer ba leer moo di Abdoulaye Bathily nee na la nga xamante moom la waxoon la mu gëmoon loolee gis na ko moo di nag procès Khalifa Sall bi procès politique la yemul ci loolu de ndaxte nag gis na ni nag mbir mi ni mu daal di tëddeeg fi mu daal di ferankulaayoo jox na ko daal di dëgg mu am lu ko daal di metti lool wax na nag ci lu jëm ci contrat pétrolier yi nga xamante ni ma ne ko ña nga tey ma ne ko signé loo xamante ni ump na askan wi wax na ci ñàkku ndox mi waaye tamit wax ci teer beeg jam ñaajo bi mbirum Khalifa Sall yër ko moom am ca lu la leer laas yéene kaay ni ñu nag moom de njiitu réew mi moom ni moom am na loo xamante nii de ma ne ko naqari na ko lool ci faatuk sénégalais yi nga xamante ni ñi ngi daal di am loole nag ma ne ko di lu mu daal di dénk yéene kaay bi di laas moom jiitu réew mi Macky Sall daal di xamle ni daal lu jëm ci ma ne ko ndox mi nga xamante ni ak ñàkk la du ñàkk du yàgg dara danañ ko daal di fàtte mu dellu nag di xamle ni lu tollook 300 milliards di ñetti téeméeri milliards dot nañ ko daal di dugal ca kër Momar Sarr l'exclusif nag di ñu xamal ni ñu moom ki nga xamante ni moo di Mouhamed Boun Abdallah Dionne ba mu amalee ab visite nag ca lee na ni weddi nag gis bokk ca kaddu yooyu sax bokk na lu mu ca daal di laale ak ak Abdoul la Soleil yéene kaay ñëw nag ci li nga xamante ni moo di ndox moomee noonu moo di ndox mi nga xamante ni ñu ngi ko doon wax wax nag lu jëm ca forage nga xamante ni juróom la ñu yéen tabax ca bayax yëral yéene kaay bi am ca lu la leer l'Observateur yéene kaay natt na lii di PSE fa mu daal di amee fort ak fa nga xamante ni nag de am na fa mën na ko ay jafe-jafe le quotidien yéene kaay ñëw nag ci li nga xamante ni moo di politique ak candidat yi nga xamante ni nag ña nga ca seenu ko parrainage gi Aly Ngouille Ndiaye ni ñetti weer doy na sëkk ngir nag ñoom loolee ñu daal di koy matal l'évidence ngay xëy ca ña nga xamante ni pare nañu ngir jàpp jàppale kii di njiitu réew mi Macky Sall les échos booba la jamono ñëw ci réewum États-Unis wax ni ab détracté bu nga xamante ma ngay xupp ni faat kii di Trump yamul ca loolu de waaye ambassade euh, ne ko Amérique bi nekk ci Sénégal giit na mu fas ak moom jëfanle yëral yéene kaay bi am ca lu la leer libération yéene kaay ni ñu nag moom mi nga xamante moo doon mbuboo tey trafiqué visa rawatina nag di làqu ci ma ko turu porte parole xalif général koy samp noonet yéene kaay bi di stade daal di jàll ci leneen lu ñeel nag Naby Sarr mi nga xamante ni moom bëgg na football ci équipe nationale bi moom mi nga xamante ni champion la u moom ak Pogba sunu lamb yéene kaay ñëw ci nag ki nga xamante ni moo fas yéene daal di tëkk kii di Modou Lo prochain adversaire um Eumeu seen yéene kaay bi xëcc Modou Lo teg ñu yéene ñëpp jàmm ndax li ñu war a wax a bari ko kenn ñëpp ne ko ñëpp càmm rek as lëf ci yéene